الحمد للحق المبين من كونه ليبي على الكتاب المستبين ما جميع النعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wa inni u'izuha bika wa suryataha min ash-shaytaan rajim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatini wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun bismillahi arrahmaani arrahim allahumma bihaqqi wajhi llahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina ومولانا محمد الفاتح لما أخلقه والحاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلام وبركة تقود بها لشيخ الخديم الخائل واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرسدا ما اخترت ورديت له في الحال والمال عونك يا معين وبك نستعين mbokki jullit yi mbokki talibe yi noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare seen mbokkum taalibe Cheikh Ndiaye Gana fas yéene dikkaat ak yéen ci seen waxtaan wi nga xam ne mooy jataayu sëriñ bi waxi sëriñ bi ci yéene li jut bi niyatin la dabtidaa'i say in fa anta waahibu ibtidaa'i sëriñ Tuuba qaada lahu llaahu maxtaar lahu nee na boo bëggee jàng alxuraan na nga ci yéene génn ci mbooleem lu la sunu boroom subhaanahu wa tànnalul ak dugg ci mbooleem lum la tànnal boo dee jàng ak xasiida ci sama xasaayit yi man nga cee yéene lu la neex kon danga ko am bu fekkee yi ma def ginnaaw bi ma jógee jolof la walla ca at ma ma fa jógee waaye xasaayit yi ko jiitu moom déedéet sëriñ tuuba xaadalahu laahu nee na boo dee wird na nga ci yéene yàlla jariñ la ci àdduna ak àllaaxira ci lu dul lor ak jege yàlla tabaraka wa taala akub yonamteem sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak jege gu lay jariñ te du la lor sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaralahu nee na boo dee naafil la na nga ci yéene dundal sunnaas yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wal barak saar yu gàtt yi yu la ci neex jàng wér na nawaytu rida rahmani fi xidmati liman ila xayri naxwi saaxa man laysa yusaanu ba tey boo xoolee xadis bi itam day firndeel ne jëfi yépp ñi ngi takku ci yéene innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kaanat hijratuhu li dunya yusibuha aw yan yankihuha fa hijratuhu illa ma haajara ilayhi rawaahu buxaari wa muslim wér na sëriñ tuuba xaadal wallaahu maxtaarandahoo nee na képp ku bëgg sunu boroom subhaanahu wa taala jox ko la mu bëgg ci àdduna ak àllaaxira nay toppi ndigalam képp ku bëgg di topp ay ndigalam nag na yéene ndax yéene moo koy metal jëme ko ci ak topp sëriñ tuuba xaadalahu laahu nee na képp ku bëgg sunu borom subhanahu wa di ko fegal lu mu ragal ak lu mu sib nay moytu ay tereem képp ku bëgg di moytu ay tereem na yéene ndax yéene moo koy wommet jëme ko ci moytu tere wér na sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaaran lahu mas nay laaj kenn ci mag ñi ne ko ana noo fi nekke woon bi ma nekkee foofee mu ne ko di sàkku rekk nga bañ a dellu si sëriñ tuuba xaadalahu laahu maxtaaralahu ne ko loolu wolof di wax saan wu dellusi xam nga ko mu ne ko waaw sëriñ bi ne ko xanaa ba ñu koy wax wu baax taxul mu ne ko déedéet saan wa ca des kay lañu jublu sëriñ tuuba xaadalaho laahu maxtaaralahoo ne ko saan wu baax day wacca gën a rëy moo gën saan wu baax day wacca gën a rëy moo gën kon dañuy xamal ne képp ku nekk ci lu baax lu mu gën a bari lu mu gën a rëy lu mu gën a yàgg loola rekk moo gën lu dul lu baax nag bu mënta ñàkk tuuti doy na ca wallaahu aalam mbokk yi noo ngi leen di jox dig daje ci sunu beneen jataay di ñaanal cheikh muhammadul muntaqa sunu boroom yàggal ko fi ba mottali ay yéeneem ak ay naalam ci liggéeyal xaadimu rasuul maa ngi ñaanal bu baax sama wasila sama sëriñ sëriñ Abdul Ahad Mbakke moom sëriñ Cheikh Mbakke moom Cheikh Mouhamadul Moustapha al Bachir Cheikh Mouhamadul Bachir Cheikhul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. هدانا